diplôme wante bu ma fa dem man maay décider lan la ñuy doon kon man nii maay nañu leen xeetale suñuy wuute te bañ leen a xeexale nañuy xeetale suñuy wuute te bañ leen a xeexale bu ñu bëggee Sénégal jël premier ci Afrique Afrique jël premier ci continent yi te lu mën a nekk la on nous enseigne que nous sommes le berceau de l'humanité mais il est temps qu'on enseigne à notre jeunesse que nous sommes surtout l'avenir de l'humanité il que les jeunesses africaines en soient convaincues et la jeunesse sénégalaise en tout premier lieu. Et c'est vrai, je l'ai dit à Ousmane Sonko, mon frère ou neveu, quand je suis allé prier Fadjar chez lui le Mais avant d'être allé chez lui à Fadjar en moto, dissimulé pour me cacher des khannas, kii waswisu fi suduri nas pour me cacher aussi des euh, gens qui échappent euh, euh, ou qui tentent d'échapper à la volonté d'Allah et dont il nous demande de nous méfier. Hein. Il dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de tous les êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds mooy gaa yi nga xam ni ñooy toog guddi ci seeni der naan Idrissa bu baat bi waxati mukk tëf Idrissa na dof tëf Idrissa nangam tëf walla wa min charri hasidin ida les envieux lorsqu'ils envient bu ñu yoboo rek noppalu li yàlla def ci man sotti na ñu yoboo rek noppalu waskur la wax daf ni mention waskur fil kitaabi idris innahu kaana siddiqan nabiyan wa rafanaahu makaanan aliyan kenn amul ci sama turandoo rek la yàlla sàkk amul bàmmeel ci kaw suuf moo tax bu ma déggee ñu naan cadavre politique il est ma ne mort bi nag moo ñëw tey di wëliis pour ngeen xam ni mu ngi fi le xam naa ne du loolu moo leen intéressé li leen intéressé mooy ndax am naa xalaat ci troisième mandat wala déet du dëgg lu ma xalaat ndax danaa doon candidat wala déet looloo leen bindi de yéen ñi seen xool bii ak seen kanam yi mais nag fokk ngeen nangoo taaxirlu wolof daf ni borom ndékki ku ko njëkk a li war a joxe ndékki da ngeen koy bàyyi Macky Sall pël pël day sàmm Macky Sall